fii ko booloon ak gaynde gi Sëñ Tuubaa fii lañ ko gi fii mi ngi nii fii ko booloon ak gaynde gi ci Ndar fii lañ ko booloon li ab parc la woon li ab parc la woon dañu xool gaynde gi gën a soxor xiifal ko ba mu xiif ñu boole ko Seexul Xadiim gaynde gi bi mu faatoo sëñ sëñ Tuubaa ak ñu denc ko fi bàmmeelu gaynde ku ko mos a gis mi ngi nii su may bàmmeelu gaynde gi mi ngi nii gaynde gi fii lañ ko denc xam ne Sëñ Tuubaa kenn du moom kenn du Seexul Xadiim bamiru gayna ya, moom xam naa gis ko bëriwut waaw si wal xadim kenn do moom tuddo ko Abdou Xafoor kenn do kenn du xaadim kenn do sëñ Tuba xaadim mooy sera ba kenn du ko billahi ni li lii ab parc la woon ay gaynde yëpp fi bu mak park bu mak normal lepp man nim mu lëndëm moo leen ko nim mu lëndëm nga xamne sëñ Tuubaa kenn dof gis ngeen gis ngeen lëndam lool lépp park loon ay gaynde fi newoon ak kéwal ak tout ñoo fi noonu ñu jël kenn dugg ko fii tëj ko fi yàlla ñu yàlla fay sew yàlla ñu fay